salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki auditeur auditrice bu Baol Média FM nii nañ leen bu baax a baax ziar leen di amaat mbégte bu baax di delloosiwaat seen rajo Baol Média FM di nuyu xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem kilifa diine kilifa aada yi ci biir réew mi yëpp rek. nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen waaye itam di nuyu mboolem internet yi nga xamante ni ñu ngi topp suñu ay plateforme lu ci mel ni Facebook BFM international YouTube Baol Média l'officiel nii nañ leen bu baax a baax a baax di leen ziar di nuyu itam ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel ci 88 point 5 euh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen euh, jox seen wàccuwaay yi noonu la ñuy nuyoo mboolem euh, personnelu Baol Média FM di ko jiital ci Mouhamadou Diop Thiat PDG. noonu la ñu nuyoo kilifa gi euh, Moustapha Thiam dongal Daaru Salaam nii nañ ko bu baax a baax di sama doom baay war xaafaal euh, secrétaire maa ngi koy nii bu baax a baax euh, di nuyu sama bopp man El Hadji Fallou Fall maa ngi nii sama bopp. du nuyu jama siisee ngaari lam tooro moom mi nga xamante ni tarkalla mooy borom njar mais wax xawma nuñ koy waxee noonu di nuyu DJ Kamoox yi l'enfant série dangaay technicien bu mag bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu euh, Ndey Kumba Jóob sama jabar moom itam nuyu naa ko bu baax a baax euh, di ko ziar ak mbooleem koo xamante ni rek yaa ngi yeewoo ci euh, rajo Bawol Média FM noonu la ñu nuyoo Baye Diagne Faye Azrar moom mi nga xamante ni moo doon def seen émission seet ak xool tabihan moom Baye Diagne nuyu nañ ko bu baax jaar ko waaye waaye di ko ñaanal jàmm di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yokk ko xam-xam bi te gën a dëgëral cër moom Baye Diagne Azrar macha allah nii nañ ko bu baax jaar ko ak mboolem koo xamante ni rek yaa ngi doon topp bi lay émission di euh, seen émission euh, tànnal sa njariñ euh, di émission tànnal sa njariñ ngeen koy am samedi ak dimanche bu 7 7 heures jotee jàpp 9 trent ngeen ci ak Baye Diagne Azrar waaye itam sam dimanche. bu 9h30 jotee jàpp 11h ngeen di ànd ak El Hadji Fallou Fall ak Soxna Ndiawane Ndiaye ci seen émission euh, confidence bu ko defee rek dañuy bàyyi Soxna Ndiawane mu daal di nuyoo ñu ziar ko bu baax a baax Soxna Ndiawane dal la jàmm seen émission euh, confidence. bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk auditeur auditrice bu rajo Bawal Média maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. di nuyu sama doom ju baax muy sëñ Fallou ñu ngi koy ñaanal fanu gudd wa ànd ak wér ak wérle mu dund 135 dimension àndut ak benn ordonnance ñoo ngi ko ci ñaanal fanu gudd ànd ak wér te yàlla lafal ko cat akum ndog ba mu yeggalee ndawam ci loo neex yàlla gannaaw bu loolu jàllee nag ñoo ngi ziara sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiir yàlla na fi yàgg te wér ànd ak mboole mu jullit di ziara xalifa Baay Faali ñu koy ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wér mu yàgg ñoo jiite moom it yooni di ziar xalifa Ndiène sëñ Abdoulatif Diène ku nekk ci bopp bi di sëñ Seydinaar Diène di ziar sëñ Laat Diène ñoom ñëpp mboolem ku nekk ci axlu Ndiène ñoo ngi la fay fekk di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu di ziar sama sëriñ sama sang sama yaakaar di sëñ Mbacke Dieng ñoo ngi koy ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wér ak wér la di ko ñaanal mboolem jullit di ko ziar. Njili Ndiaye sama doom di uh, waa kër gi yëpp rek soxna Kine soxna Ngasa di ziar Baye Mbaye Sall ak ay délégué quartier mag ñëpp ak soxna Thian Mbuub ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal jàmm ci diwaanu boobe leen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala soxna Jawaan Diagne sopp sëñ naar jenn Touba boobe del dafa am émission bi muy def dimanche 10h30 chaque dimanche 10h30 ci yor-yor bi ci rajo Bawal Média ko xaal bi jëm ci jumaa ji. kon nag alhamdulilahi rabbil alamina ñoo ngi ziar sëñ Modou Diop Diatta sama doom ca kaw ca kanam ak kooku ko yéene jërëjëf ba ci kanam. Mhm. Euh, jërëjëf moom soxna Ndiawane Ndiaye di am mbégte di ànd ak moom ci bile émission di émission confidence comme ni ma ko waxee woon léegi rek saa su nekk rek seen émission confidence euh, day ànd ak ay euh, borom xam-xam la ñuy daal di àndal ci lii bile émission. Euh, ñuy ànd ak soxna Ndiawane njaay bis ni ki tey nag dañ ko daal di door fa séene ànd ak moom ci bile mission maanaam bokk ko ak moom muy doxal may doxal muy gën di neex bu ko defee sama xel dem ci Koura euh, Diop mi nga xamante ni moom laa daan àndal bu heure bii rek jotee moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax ko ziar di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di wax ne auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi doon bàyyi xel Koura mu ngi ci jàmm Koura mu ngi ci jàmm bu baax baax euh, noonu la xam nga jamono des fois day am nu muy doxee rek bu ko defee ñoo xam ne Koura mu ngi ci jàmm bu baax a baax voilà Koura ñu ngi lay nuyu bu baax dirigea ni ñu koy defee saa su nekk rek noonu lañu koy daal di defee ñëw dëgtal leen leen ci éléments yi nga xamante ni moom lañ leen di dëkk dëgtal saa su nekk bu ko defee rek ngeen déglu li nga xamante ni moom lañ fas yéene ànde ak yéen tey ci bile émission euh, kenn ku nekk mën cee joxe ay xalaatam comme ni niñ koy waxee euh, saa su ne kon bu ko defee rek ñu ànd déglu li nga xamante ni moo di euh, élément bi ñu daal di dellusiwaat. képp ku am xalaat wala looy xelal borom jafe-jafe yi ñuy teg ci temu tey bi mën ngaa woote ci 88 628 19 05 88 628 19 05 seen émission confidence te émission bi génnee njàqare yi ak jafe-jafe yi nit ki dund. dama dal mooy dama am benn waaju may bëgganteel léegi ki nga xam ne moom laay bëgganteel sama ñaari waajur d'accord te man ak waaji yàgg nañ yàgg nañ trop ñuy dund mu bëgg ma bëgg ko mais man ak waa ji nag bokkuñu dara mais bu ñu demee ba si biir ba waa ji ñëw bëgg a ñaan si pour ñu may ma ko samay paara bañ léegi am keneen ko xamante ni sama mbokk la moom sama yaay ay mbokk lañ léegi kooku tamit ñëw ñu ne ma duñ la may ki nga xam ne bokkuñu dara duñ ko may ndax kooku bokkuñu dara xamuñu ko duñ la ko may duñ may ab jàmbur daal maanaam man ko yéen lan tax nangu leen maa may ki ma bëgg. nee ma duñ la ko may ndax sa mbokk kii fi ñëw nga xam ne mooy sa mbokk moom lañ lay may léegi bi si biir leen man bëgguma ki nga ki nga xam ne mooy mbokk bañu ma ko que su bañ sama mbokk waaye yaa dafa dafa dogal ne ki nga xam ne moom laa bëgg bu bëgg ma su ma ngeen may ma ko affaire de mbokk ak yi du dara ku nekk ak ki la yàlla seen borom boodee rek ñu bañ nag ni ma duñ ko may léegi dem ba si biir waa ji mbokk mi moom moom macha allah yàlla suñu borom wërsëgal na ko mu am alal lool léegi xam naa tamit samay parents alal ji lañ gis ni ma duñ ko may ndax ki nga xam ne bokkuñ daal maanaam di ko xeeb ak yooyu daal maanaam ki nga xam mooy suñu bokk daal am na alal te man gëm naa ni man alal ji lañ gis moo tax ñu bëgg ma cee forcé te man mi aji dem ji gisuma alal ji kii na nga xam ne bokkuñ dara yàlla dogal na man manam soriwul man bëgg naa ko mu bëgg ma léegi ñu ne duñ la ko may ndax kee yorut maanaam daal si gàttal ki am daal moom lañ la bëgg may mu doon affaire bu ma metti torop ndax bu ma ci forcé ba ma dugg ci xale bu góor bi dina xam ne man samay paara alal moo tax ñu forcé ma ci te man mii naa man sama bëgg-bëgg alal dugalu ci waa ji moo ci duggee tamit alal dugalu ma ci waa waaye man tamit fekk siwu ma leen si ci leen wax benn yoon ci laa demee sama benn ndigaay ku bokk ak sama yaay ndey bàyyi expliqué bi ko lépp mu demee mu ne ma wax nga ma de waaye dinaa jàpp sa loxo ba say ñaari waajur ma toog ñu toog ñu waxtaan wax ma affaire bi nan la demee ma ne ko waa baax na ma ànd ak sama ndijaay bokk sama yaay ndey bàyyi daal dem dinañ waxtaan ak ñoom ba pare ñu ne ko ki ñu bëggante xamuñu ko xamuñu ko ab jàmbur la te mbokkam yi nii di ko bëgg si yow lu du jeex loolu di sa yëg moom di sa yëg kenn nga xam ne amul. léegi sama nijaay bi nag seet ne ko kon yéen daal alal ji ci ngeen bëgg a sukkandiku ba may may maye ko moom xoolu leen si dara lu dul alal xoolu leen si mbëggeel xoolu leen si yéen ñaar fu ñu ñoom ñaar fu ñu toll lu dul alal ji sama nijaay nag ni ko ki nga xam ne mooy mbokkam ñu ko ko may ki nga xam ne bokkuñu dara bëgg na ko mu bëgg ko moom lañ koy may sooba yàlla si yàlla àndee moom lañ koy may sama papa sama yaay rek ni ma buñ la ko mayee dinañ la bàyyi àdduna ilaaxira bis boo fa sëyee boo fa doon dee tamit duñ duñ la fa fekk duñ la fa fekk te bis boobu muuroo bu sëy kër gi boo muuroo bu sëy kër gi bis boobu noonu ngay génn sa tànk bu mu fi te xam nga waajur dafa foo si doom te xamu ne jigéen bu nekk buy sëy sañ na bu toogee gis yaayam gis papaam mais neexut ngay dem di gisoo sa yaay gisoo sa papa dafa metti metti na torop maa bëgg nag waajur yi ñu xam ne sëy faka yàlla suñu borom tudd rek foofa lay am dama bëgg waajur yi ñu bàyyi xel ci mbëggeel xam ne mbëggeel dafa foor te ñu bàyyi nit ñi seen doom yi ñuy jël di ko jëlax nit ñi ngir alal alal sëyut de li dal mooy képp ku am xalaat wala looy xelal borom jafe-jafe yii ñuy teg ci temu tey bi mën ngaa woote ci 88 628 19 05 88 628 19 05 seen émission confidence te émission bi génne njàqare yi ak jafe-jafe yi nit ki dund. Euh, voilà seen euh, émission confidence la comme niñ koy euh, defee saa su nekk rekk tey. foofu la ñu dikk ak yéen mën ngeen a ànd ak ñun ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 bu ko defee rek ngeen mën a dugg participer joxe seen xalaat ci bile thème euh, ngeen indi xalaat yoo xamante ni bu ko defee rek kenn ku nekk mën na ci daal di jànge muy euh, xale bi nga xamante ni moom moo jàq jaaxle waaye itam ay param ak ñi nga xamante ni ñoo ko bëgg ak ñi nga xamante ni itam duggaguñ ci lu ni waaye itam euh, ñëpp ñi nga xam tey xale lañu war a dugg ci biir néegu sëy war a xam lan lañ ci war a jàngate ci lii nga xamante ni moo xam moo xew ci euh, bile xale kon yéen ñi nga xamante yéen ñuy déglu képp koo xamante ni rek bëgg na dolli xalaat bile soxna rek mën na jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ko defee incha allah ñu daal di ci ànd ak yéen ci euh, élément bi daal di dellusiwaat. sa waaji sa waaje yow yu mbaadu li ngay bàkkoo sa waaji sa ci sëriñ kër yaax mu tàggale koog sa doom voilà mu ngi noonu kon bu ko defee rek dañuy daal di euh, ànd ak yéen daal di leen di décortiquer tuuti rek ci li nga xamante ni euh, soxna si indi na ko fii muy moom mi nga xamante ni moo di xale bu jigéen bi dafa gis ku bëgg nekk ak moom. Euh, yàgg nañu lool nag ci ni ko soxna si waxee waaye li ñuy nekk lépp seen ay parent xamoon nañ ne ñoom ñaar dañoo bëggante. benn bis la xëy rek euh, parents yi daal di koy proposé keneen ni ko kii lañ lay may duñ la may euh, këla euh, moom nag xale bi lim ci jàngatee mooy ki ñu ko war a may seen mbokk la waaye itam mag la moo xamante ni yàlla denk na ko dara waaye moom soxna si ki mu bëggal boppam yorul comme ni ko waajur yi di séentoo moom nag li ko ci jaaxal mooy ni ko proposé ku mu bëggul ba pare te ka mu bëgg moom la leen proposé ñoom ñu daal di koy gàntal loolu ngir bokkuñu euh, du ñu ay mbokk en plus moom euh, kële lañ ko bëgg a may. loolu nag bëgg na ku ko ci dolli xalaat ngir mu daal di euh, xam fan lay teg tànkam soxna soxna Njaawaan la ñuy bàyyi mu daal di indi ci xalaatam bala ñuy gën a yaatal émission bi. Mhm. ah jërëjëf sëñ Fallou sëñ Fallou naan Fall wala. Fall sëñ Fallou Diagne rek laa lay may jërëjëf sëñ Fallou Fall sama doom sama xarit émission bi am na solo lool wax dëgg yàlla li la ñuy tuddee confidence wax dëgg yàlla ci lu la naqari rek wala lu la jaaxal nga indi ko ci euh, plateau yi ñu jëm ci saytu jëm ci xool ba xam nan lañ koy jàngatee lu ci sunu xalaat wala lu ci sunu xam-xam ñu jëm ko ci wax di ci ubbil tamit mbokki auditeurs yi wala auditrices yi ci biti ku ci am sa xel mu rafet rek dolli ñu ci xam-xam dana doon lu ñu ñor lool wax dëgg yàlla waaw comme noonu ko soxna si waxee rek ku ne xam ne yaatu na ci dëkk bi léegi ndax yaa ngi am sa koy bëgganteel dema dema dem ba kenn ku ne xam ne kii bëgg na la bëgg nga ko parent yi daal di koy bàyyi muy ñëw ci kër gi di va et di bàyyi sa doom muy dem wala sa doom kooku di ñëw di ko seetsi mun leer na ne ni kii dafa bëgg sa doom wala sa doom da koo bëgg soo demee ba ci biir tere ko ne ko bu fi ñëwee ci xale bu jigéen bi bu fekkee bëggam mi ngi des dana dem di ko seeti te doo ci man dara léegi soo demee ba ci biir nag ñu daal di ne la carrément ñun gis nañ ki nga bëgg waaye duñ la ko may sa mbokk mais dañ lay may parce que lim yor lakk jeexalu ko te kii yorul dara ndax garab bu la sutut du la may ker mm-hmm. bu ko defee nag xale bi commencé am na ka ay xalaat yu muy boole euh, ak bëggam di ko di ko bëgg a dunde du mën a bàyyi du mën a weddi waxi parents yi te dina rus a dagg mbëggeelam kon wax dëgg yàlla dana doon lu yéema trop trop trop ci ci ci xale bu jigéen bi ma di leen xamal na leen nag lu bari nag léegi loolu dafa bari ci ci dëkk bi may wax sama moroom yi ak sama mbokki waajur yi ñi jabooti jigéen ñi nañ leen ciy def doucement bu baax a baax ndax am na yenn ëmb yu bari yoo xamante ne bii mi ngi jóge ci lu mel noonu te daanaka xale bu jigéen bi ay waajuram ñoo ko koy yóbbee waaw doom dama bëgg su ñëwee la kii laa bëgg indi na ko ba ci sa kër wan la ko wan ko waajuram wu góor waajuram bu góor nuyoog moom jàmm sante moom dalal ko xam ne koo gis mu ñëw ci kër ci kër la génnee léegi nga daal ne ko luy say tànk mu ne la samay tànk mooy bëgg sa doom te bëgg ko def soxna moo tax ma jéem a xam kër gi jéem a ñëw ba ci yéen waaw mu ne xamal ko ne ool doomam laaj ko ndax bëgg na doomam bu ne waa bëgg naa waajur wi na daal nekk ku góor ki yebalal say waajur ñu ñëw ñu waxtaan su ko defee kooku da ngay daal di mottale xale bi ci li mu gën a bëgg parce que jigéen soo ko mayee ki mu bu demee dina ko sëyal góor soo ko joxee ki mu bu ñëwee dina ko téye. Mm-hmm. waaye lan mooy indi léegi erreur yi mooy may nit ku mu bëggut ndax léegi lan lañ jiital koom-koom bi. Mm-hmm. soo yoree duñ xool fa nga bokk duñ xool ban askan nga duñ xool lenn. soo yorul nag ci lañ lay génneen duñ la ko may ndax du sa nawle duñ la ko may ndax yorul dara xale bi nag su dee ko am mm, kii la tuuti day daal di nekk ci loolu di ko dund di ko xalaat di ko xalaat ba day mujj souffrir léegi nag su fekkee nag dem na ba xam ne ki mu bëgganteel te xas ko jox ko la moom mënatu koo wor moo waral nag ëmbal yu bari yi am rek. Mhm. am na ëmbal yu bari nag yoo xam ne mu ngi ñëw ci bopp xale yi waajur yi lañ koy dóoree ëllëg bi si penc. kon nag ñun waajur yi nañ ñeen di def doucement te xam ne yàlla mayewut day able te loo njëkkee rek mën nga koo mujjee nit day am ba na noonu la. suñu borom arrêté ko nangu lam amoon jox ko nag nag ko naa sedd ki masta am ba xam moom it nu muy doxalee bu boobaa nag dangay am kersa ci su ma démb doon tey ma may ko sama doom ndax moom la bëgg mhm. bëggante woon nañ ndax nag kenn xamul sa tey wax ma laak sa suba nañ leen ciy góorgóorlu baax ñu ngi ci émission bi nag fii ci diwaanu rajo Bawal Média soxna Njawaan Diagne sopp sëñ naar jenn di maire émission li ci kër yi moo mhm. ñëwaat yeesalaat émission ci confidence chaque dimanche 10 heures et demie képp ku ñu ci bëgg a jot nag da nga ñëw ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 ba ci kanam kon ku ci am sa xalaat rek ubbil nañ la ligne bi. Mhm. jërëjëf. Mhm. am na solo kon euh, comme ni ko maire Ndiawane waxee rek noonu la. Euh, seen émission confidence ngeen koy am 9h30 euh, chaque dimanche 9h30 jàpp 11h ci rajo Bawol Média FM 88 point cinq Euh, maire Ndiawane wax lu am solo jëmale ko ci bile élément comme ni ñu ko waxee rek élément bi bari na lu ñu ci mën a jàngate jëmale ko ci ñi nga xamante ni aussi mooy xale yi nga xamante ni dañuy dañuy faral di bëgg comme ni ma koy waxee des fois xale yi euh, damay jàpp ne ñoom xamuñu aussi lan mooy bëgg parce que des fois dañuy bëggantu rek waaw xamuñu bëgg ban moo war a takk sëy wala bëgg ban moo war a ànd ak sëy Euh, bu njëkkaan xam naa maire Ndiawane dina ci xam dara comme ni ma koy waxee bu njëkkaan euh, waajur yi dañuy téye seen doom ci biir kër gi. ba mhm. benn bés rek bu dee doom bu góor la ñu ne ko demal sa kër nijaay diw. bu ñu fa demee xool la ñu bëgg ñu ne gis naa fa diw ñu ñëw ñu dem waxtaan après daal di takk sëy ba mhm. bu njëkk dafa mel noonu la demee waaye léegi xale yi dañuy am 18 euh, ans wala 17 ans rek génn ci mbedd mi. Mhm. commencé nekk ci mbirum bëggante. Euh, waaye day daal di dellusiwaat rek ci li nga waxoon léegi ne lépp parents yi la. Mhm. ndax bu fekkee ni euh, yar nga sa doom na nga ko war a yare d'abord. Mhm. teg ko fa nga ko war a teg bu génnee dina xalaat leneen lu génn di gis lu mu bëgg. Mhm. bëgg gis gis kenn bay bëgganteeg moom xelam bëggante du ci nekk waaye leneen moo ci nekk waaye bu fekkee danga bàyyi sa doom mu am benn liberté bi ba mën a dem ba am choix di bëgg bu xasee bëgg. nga bàyyi ko aussi mu bëgg nit ki yàgg ak moom lool te soxna si li mu wax nee na yàgg nañoo bëggante waaye parents yàgg nañoo xam ne ñun ñaar dañoo bëggante nga bàyyi sa doom di ko otal ci lenn mu nekk ca sëgg ca sëgg ca sëgg ca nekk ca rek te nga xam ne li mu nekk nii ala kulli al yow doo doo doo du am ji njeexital maanaam yow doo ko ko may nga bàyyi ko mu nekk ca rek la doon gën mooy ba mu nee càpp rek nga ne ko bàyyil mais problème bi mooy parents yi aussi dañu ubbil seen doom yi bunt boo xam ne tey bu ñoree seen xale doom bu jigéen bu gisee ku mu bëgg ñu am fitu ñëw ne yaay kat gis naa ko ma bëgg bëgg naa diw pour ñoom ñu jàngat ko ndax ku baax la am déet bala mu cay sóobu nga xamante ni bu jaxasee sóobu rek sóobu na ca waaye bala mu cay sóobu mu waxtaan ci ak yaayam wala papaam day fekk ñu ubbil ko benn bunt ndax am na parents nga xamante ni comme ay berger allemand ci biir kër yi mhm. xale yi ñu meew ñu leen ñu mee goo xamante ni danañ am benn benn benn jaaxle wala benn njàkkare ba dikk ne leen lii laa bëgg nga joxal ma ci xalaat mais dañu leen di bàyyi rek ñuy tox ci lëndëm gi di dem te xale yi aussi da bari ñoo xamante nangoo ñu ko leen digal léegi ñoom bu ñu xasee am 17 ans nekk benn xale rek dañu jàpp ne léegi mbir mi moom ñoom mën nañ koo tiil seen bopp mën nañ koo xamal seen bopp mën nañoo xalaatal seen bopp bañ nañ ba bu ñuy wax dañ naan mairie yi dañoo xew yi mm-hmm. mm-hmm. te li koy waral mooy jàpp ne seen seen seen vie fi mu toll ñoom ñoo ko mën a gérer seen bopp ay toll ci def ko weesu ko bàyyi ko genre dundin boobu la ñoom dundin boobu nag éducation la man jàpp naa ne parents yi euh, fi nga fi nga meer njaa njaawaan tibbe foofu la parents yi lépp lu jinjaak ñooy parents yi d'abord parce que dañ ci am part boo xamante ni mu nga doore ci éducation ba kon xale dañ koy yar yar boo xam ne da nga koy yemale ci li mu war a yem li mu war a xam mu xam ko li mu waragul a xam bu mu ko xam te loolu yëpp nag nga bañ koo may benn liberté bi ba mu am sañ-sañu génn di gis lu mu bëgg ndax xale bu génnee gis gis lu mu bëgg rek peut-être bu fekkee ne daf laa ragaloon bu la gisut mën na attaquer li mu bëgg waaye bu fekkee ne toujours da nga koy yar ci éducation boo xamante ni mu gis la ak mu ñàkk laa gis ci éducation boobu lay dox bu génnee sax du am sañ-sañu gis nit ba naan dama bëgg nit bay nekk ak moom ba ñu nekk au moins lu durée bu yàgg ba mu am xëy xëy benn jour am sañ-sañu ne dañ ma ko war a may parents yi ne du ca dal du ca dal nag moom li koy faral di dégg bari na xaw ma nag mère Ndiawane mag ña daa am fu ñu sukkandiku ci du ca dal ja xawma waaye loolu daal xam naa euh, war ngañ ci indil ay leeral dëgg fan la fan la parent yi di teg parce que man dama dul dégg parents yi ne duñ ko ko ndax amul diine waaw man dama dul gis parents yi duñ ko ko may ndax yi man damay dégg parents yi naan duñ ko ko may ndax ci yax bu rëy nga bokk ak euh, ki garab bu la sutu la may kër damay dégg mhm. loolu ndax ndax loolu moom moom moom nekk na lu wéram déet jërëjëf sëñ Fallou mhm. maa ngi rafet rafetlu sa kàddu baax li nga wax rek mooy li ma la wax sànq rek ndax mhm. lépp ci parent yi lay débuté parce que éducation de base dafa baax muy ci xale bi muy xale bu góor bi muy xale bu jigéen bi dama laa xamante sama biiru kàddu ne la. Mhm. am na ci ay xale yoo xamante ne ëllëg suñ demee ba ber seen gétt danañ mere seeni waajur. Mhm. ëllëg suñ demee ba seen avenir am dara lu ci sooke dinañ ko jooyee seeni waajur ëllëg bi si penc tamit suñ borom dina ko dumaa seeni waajur ndax xale tam bu fekkee ne dafa nekk eh, di jigéen nga yor ko ci sa biir kër mu nekk ak yaay ak baay ak ay magam. Mhm. nga war koo defal bien éduqué su ko defee di ko oo di ko nemmeeku. bañ koo tëjal sa kanam parce que njaboot fii ak yaa ngi jël sa kanam gi tëjal ko sa njaboot muy baay bi muy yaay nga ne looloo tax ñu respecté la looloo tax duñ bon boobu yaa leen may tànk buñ bone mhm. parce que nañ waree na xam ci biir kër gi ubbiloo leen seen kan sa kanam bañ war koo xam kon suñ génnee tuuti rek suñ ko xamee moom da nga leen di ñàkk xale bu jigéen da ko daan oo soo tëddeek moom di waxtaan ak moom mhm. di ko expliquer lu bari soo demee ba nga xamante ne bii sa toll nga ci gis baax sa bu njëkk ba bu ko xale yi gisaan da leen daan jaaxal dañuy daal di ñëw oo seen yaay ne leen nangam avant mu egg ci loolu nag ci nga koy njëkk oo soo demee ba am ay nangami at ay 15 ans wala ay 17 ans wala ay 13 ans di nga ba yàgg nga am loo gis loolu soo gisee nii nga koy defee nii nga koy defee nii nga koy defee mais nag ci biir loolu nag soo demee ba gis loolu ba yàlla dogal mu am 4 jours 5 jours mu arrêté na nga góorgóorlu na xam ne yaa ngi doog a mën jànq su boobaa nag am na nooy def nu tuuti rek ah da ngay ëmb de. Mhm. parce que doom bu jigéen ak yaayam lakkante wuñ moo ko war a jege taf ko ci boppam di ko xamal lu bari su boobaa yenn fréquentation yi ci xale yu góor yi bul ko nangu suñ la leen nii bañal buñ la ne ma may la nga ma jox la nangam bañal su boobaa bu dul loolu da nga ëmb de soo demee nag ba gis koo bëgg. ñëwul dee man ndànk ndax doo mën a tëb rek dem ci sa papa. Mhm. ne ma yaay man ko damaa gis diw bëgg na ma nee na damaa bëgg yow loo ci xam Mhm. ma ne la kan nga ne ma doomi diw ma ne la ah waaw loolu de mën naa ne war na laa yor de war na laa yow ndax moom bëgg nga ko nga ne ko waaw mën kay yaa bëgg naa ko waaye man kat yaay ku ngeen bëgg rek bëgg naa ko mhm. bu njëkk ba looloo daan am su ko defee mu na la waa baax na bu ko wax kenn bàyyil noonu xale bu góor bi tam day dem oo waajuram daal di ko koy expliqué su ko waajuru xale bu góor bi dana am ay fan mu jàpp bés dem seeti leen waxtaan mel na ku leen seeti mhm. caxante kook yaay ku jigéen ki na ko sama doom bu góor bi de bëggul lu dul sa doom ji mu ne ko ah sama doom ji de moom it wax na ma ak bëggam léegi danañ jéem a waxtaan ak papa yi rek ba xam ko ñoo yor suñuy kii kàddu mhm. su ko defee ñu daal di topp loolu su yàlla dogalee waajur wu góor yi tamit daal di ci am ak nangu mu daal di neex lool su yàlla dogalee waajur yu góor yi kenn am na ak bañ yéen ñaari waajur yu jigéen yi ngeen fexe gisante waat naka ah, kii kat waajuram nee na nangam nangam nañ bësante ba ci kanam ndax nit nag moom moom doomam su mhm. bëggee rek ñu dox bu bëggu nag ñu bàyyi seetu liy seen wërsëg te du yàq dara sama ànd ak yow lii dañ ko daan def wa ilaa nga jékki-jékki na man de damaa bëgg soxna ñu ne la foo ko bëgg koy bëgganteel nga ne man kay fu ngeen ma yabal rek. Mhm. bu njëkk ba xale bu jigéen da daan toog rek bañ na ko tey jii ngay war. Mhm. fu may sëy ñu ne kër yaay diw wala kër bàjjen diw wala sa kër taalibe mm, sa kër mm, kër sëriñ sa papa dalaa may taalibeem ab doomi taalibeem wala ab sëriñam. Mhm. kon fa nga jëm yow xamoo kooko na mu mel. xamoo nu mu mel xamoo mi ngi gis xamoo gisul xamoo daal lu ne ci moom su ko defee nga ànd ko yar na man ko yéene samay waajur ku ngeen bëgg bëgg naa ko na xam naa ne waajur moom du jël tibb tàng di ko ngabal doomam. déedéet daal di nangu dem. sëy boobee yaay kontaan bàyyi kontaan loo fa am day daal di barkeel. Mhm. su la waajur muñalee ndax loo xam dara soo demee ba la naxee ci boppam rek da nga koy daal di bëgg yow ku góor ki tamit nga toll ci jabar ñëw waxtaan waajur ne leen damaa bëgg soxna. ñu ne la ana koo doon bëgganteel nga ne man kay bëggantewu ma kenn yéen laay déglu ñu daan na ak ah, kon tee ngaa dem kër bàjjen diw wala kër yaay diw wala kër tante diw wala sa kër nijaay soo demee yebal diw ndax ndeyam sëykat la bu njëkk ba foofu la mag ñi daan sukkandiku yaay ja sëykat la bañ ko indee ci kër gi ba tey dafa fi lu ñaaw fay li wuñ ko waxu fi denn luñ koy xeebee te doom nday ja demal jël ca nga daal di topp sa ndigal waajur woowu daal di dem jël ca su ko defee olof naan geer la kat boo gajee geer geere cee jibbe doomi diw kat nag sëy doo nga la mën a xam ne kon day sëy mhm. léegi si nag dañoo toxal am na ñu ciy dund mais bareetul léegi sëy ban moo am portable mhm. ban moo am duggal ci youtube bi gis ma ne ma sañsee gis li ma abiyewu xamoo lan mooy sama jikko mhm. nga daal di ma nga daal di accepté ci man miir commencé ma bind say say sms ma di la ci tontu ba xol yi àndi bëggante suñ demee ba nga xamante ne gisee nañ nag ba nga dem ci sa waajur na ko kii laa bëgg moom laa la woon si nii nangam bërëb sàngam la dëkk ku ma ko mayul duma takk jabar wala xale bi ne ku ma ko may duma sëy waajur suñ bañee seen doom sànq wala seen doom gàddaay ñu daal danañ ko ko doxal mm-hmm. ci biir loolu nag ñu encaissé la nga jotoon a dajale lépp loo am def ko ci xale bi daal di ñëw lam séentu ci yow gisu ko mu sëy la fa weer képp wala weer ak fukk fan tàppaas say waajur ba tàggoo ci wala yow tamit nga xool xale bi ni mu doxalee ak lim la wonoon ba nga ciy dugg bokkut ak gu sëy nga daal di énervé wu daal di koy libéré mooy sëy yi gaaw a tas jotoo xam jikkoom. Mm-hmm. jotoo xam lu mu wala lu mu tële su ko defee loolu say waajur ne la waxoon naa ko bala ngay duggaat ci jabar ne damay toog ba ci kanam damay seet ah léegi waajur yi aussi doo gis mukk tam nga ñëw di nopp si seen doom ñu naan la ban diine am ban diine nga bokk. Mm-hmm. doo ko dégg. Mm-hmm. waaw ndax waa ji am na diine. parents yi ko ciy def bareetut sama doom maye ma ko alal ko am diine laay wër ñi ko ciy def am na de mais bareetut lan la ñuy maye doom yi léegi lijjanteetuñ sax foo bokk ak foo bokk ndax nee naa leen man loolu dama ko crité ci sama dund. Mhm. ndax ñun ñëpp ay bànni doomi aadama lañ. géwél ba géer ba tëgg beeg lawbe bi yëpp comme dañoo nekk ci jullit gi rek bokk fi ñuy jublu rek bokk ni ñuy jàppee bokk ni ñuy jullee bokk ki ñuy sàbbalal moom buñ bëggantee rek war naa mën a rafet na am diine. na am diine diine ji moo war njëkk su amee diineem bu ko jëlee man koo mottali lu bari ci diineem ñu àndi uti seen wërsëg. waaw mm-hmm. ndax ñaari ndaw ñàkku dara. léegi nag lan lañ lay wax nga ne lu muy liggéey sa ji fi ñëwoon nga ne moom nga bëgg ba présenté ma ko lu muy liggéey nga ne ah moom da dëgg yàlla jàppul ci dara de def maa gis rek bëgg ma. Mm-hmm. waaye jàpp ci dara. man gis naa koo xamante ne waajuram noonu lañ ko trompé ci xale bu jigéen bi dana papaam jàppul ci dara. daf maa gisee bëgg ma te fekk na macha allah yàlla wëccu ko. Mhm. mais noonu la wax baay bi. mu ne ko kon kay jaru ngay yeggale say kàddu ku jàppul ci dara di demee wërsëgam noonu rek xalaatuma la koo jox muy yokk coono. Ah mhm. ku la mënta jël mën laa dimbale ba dimbale waaye lu ñu duma la ko may. xale bi xamal ko ne ko man tamit nag jàppul ci dara waaye man moom laa bëgg ndax am na diine. Mhm. waaw bañ demee ba yàlla dogal sëy boobu bam na ko comme tere naa la nga tën nag na yebal ay bokkam ñu may ko ci lañ ko doog a wax xale bu góor bi lim jàpp lépp mu doog ci am gàcc kon nit ñi léegi alal ji moom lañu moom la ñuy mayee xale yu jigéen ñi aussi alal jooju moom la ñuy toppee mm-hmm. suñ demee ba ci biir gisaduñ la alal jooja sëy bi du yàgg xale yu góor yi encore li ñuy li ñu yàq seen ngoro yi teel mooy dañ lay bëgg ñëw di la fen mm-hmm. li ñu war a am amuñu ko fi ñu war a jàpp jàppuñu ko si semaine bi ñu lay nopp rek li ñuy habillé wu ak li ñu lay financé nga ne yor na lu ne ak lim lay wax jigéen xelam guddut mu accepté ba nga takk ba yóbbu sa kër la nga ko waxoon gisu ci dara ngeen commencé am ay problème mhm. kon loolu daa doon ci fànn bu ne waaye ñun waajur yi bu ñu yaree suñ doom yi fañ leen war a yare mhm. danañ am lu bari lu xale boo xam ne dina ko ragal wala dina ko rus wala dina am lenn lu mu delloosi lii de bu ma indil gàcc xoola ci sa néegu ndey mbaa xoola ci sa néegu baay lii na nga góor góorgóorlu loo soxla ma defal la wala sa papa defal la wala gëmal sa liggéey nangam nangam soo gisoo koo bëgg indil ma ko comme nag léegi xale jigéen itam bu ñu gisee kuñ bëgg yóbbu ca parents yi ñu ne la ki amul dara wala du sa nawle mhm. te bëggoo euh, gaspiller sa bopp te kooku nga jox sa bëgg te parent bi mënula koo may dangay dem ba ci biir rek ñu naan la ndax seetlu nga ko léegi ni muy doxee wala ni mu mel ak loola ni mu jeexee fekk nax nañ ko bu yàgg mhm. kan moo ko ko yóbbee yow parents yi kon nañ leen topp diine ji te bañ a topp koom bi tey da ngay doon ab taalibe dem di ñaani benn soxna mhm. yoroo dara ñu ne ah ñu de wax dëgg yàlla mën nañ ko ko may suñ mbokkum taalibe la waaye nag daa yorul nga dem léegi tombante fa ak ab tubaab gaare mhm. ñu ne la may ko ko soo ko mayee mu mën laa génne ci situation yi li ngeen ne am na nu muy demee sax tubaab bi yóbbaale ko réew ma su demee tuubal ko wala na tuub fii doo a mhm. kon léegi nga xam ne parents yi moom ñi ci ëpp koom bi la ñuy toog koom boobu nag moo indi ma civilisation bi ci dëkk bi kon na yi wëlbatiwaat seen xel jël xale yi taf ci seen bopp ñu mën leen di ñeme soo amee sa gan gu la seet si nga ne ko bu mu dugg sax sa paa bi daa naqari deret wala yaay ji mhm. nañ tase si koñ sàngam ñu waxtaan wala nañ tase kër sàngam ñu waxtaan sa doom dina dem ba indi la doom joo xam ne baay bi mun ta xam sa kër gi mosu fee dugg ndax soo bëggul ku seet si sa waa kër sa waa kër danañ sol mbubu seeti ko te doo ci mën a faj ndax doo leen topp mm. kon nag nañuy naxanteeg suñuy doom yi di waxtaan ak ñoom di leen jege di xam lañ bëgg su baaxee ñu ànd ceeg ñoom su bonee ñu génnee leen ci ndànk waaye xale bu jigéen a ngi teg jëm ñu koy teg ci rajo beeg télé yi naan dafa réer dañ koy yóbbu mhm. dañ koy lii fekk da doon dund loo xam ne ci biir kër waajuram mënatu ko satisfaire mu génn abal leen ak dem lii libéré ci boppam kon loolu moom ñun waajur yi nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax ba ci kanam mhm. euh, am na solo 88 euh, la 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 81 08 ñu leen di fàttali ne yéen a ngi seen émission confidence ngeen ci ànd ak El Hadji Fallou mu ci ànd ak soxna Ndiawane Ndiaye. Ndiawane jaañ mm, sopp Serigne Naar sopp Serigne Naar Dieng soxna Ndiawane Diagne sopp Serigne Naar Dieng njaañeen beeg faaleen bi la <laughs> euh, bu ko defee noonu la euh, bu ko defee ngayri dañuy toog di seetaan rek ñoom Baye Cheikh Gayri jaal ak ñooñu <laughs> ah. euh, amul sa amul problème <laughs> waaw ci 88 point 5 ngeen ñi teewloo émission bi ngeen koy am euh, dimanche bu nekk bu 9 h jotee comme ni mu daan demee rek noonu lay woy di demee euh, soxna naa soxna Ndiawane wax na lu am solo jëmale ko ci wàllum parent yi ak la ca aju euh, mu mel ni kon boo ko dégloo rek da ngay xam ne jamono ji dafa xaw a jaxasoo. Mhm. jaxasoo gi mooy xale yi ñu ngi bëgg a dem ak seen bopp. parents yi aussi bëgg jëflante ak xale yi ci loo xamante ni du diine waaye àdduna la. te li ëppoon solo mooy ñu sukkandiku ci li nga xamante ni moo di diine wax naa ko fi la fois passée mosuma gis benn sëy bu ñu dàq ñu ne lu tax ñu dàq ko ñu ne kii daa amul diine moo tax takkuñu sëy bi waaye mënu koo yor ak bokkuñu xeet ak ci yax bu rëy ak bu dijj yooyu te lañu bokk te euh, war nañ ma maa ràññeete nag lan mooy yax bu rëy ak bu dijj xam naa boobu am naa ci jafe-jafe ba tey yax bu rëy ak bu dijj war nañ ma ko ràññetle euh, ba tey rek dañuy daal di des ci émission bi euh, soxna si nga xamante ni moom mooy indi élément bi am jafe-jafe moom tey jii euh, bu ko soxna njaawaan doon jox xalaat ndax da koy bàyyiloo ki mu bëgg dégg waxi waajur yi wala moom day daal di xool la nga xamante ni moom la bëgg ngir def ko soxna njaawaan jërëjëf doom jooju nga xam ne moom la yàlla teg kii boobu xalaat boobu mu am ko ba ñàkk xam fu mu féete ba tax mu indi ko ci euh, rajo bi liñ ko ci conseillé rek mooy na delloo si xelam bu baax a baax a baax te gën a góorgóorlu gën a muñ ndax waajur moo demee noo xamante ne bii moom nen laa ko xeer bu dalee sa kaw nga gis ko boo dalee ci kawam gis ko. Mm-hmm. kon nag euh, te lépp luy waay di ut te amoon sa ngërëmal ñaari waajur su la mayee am xëyit dina la xañ am ngont kon nag te góor ñi aussi. su la jaralee yenn yi ba nga divorce ba nga séparé wak say parents topp ko góor ki tam ah góor ñi mooy loolu ci ñi ma ko war a wax mm-hmm, mm-hmm. mën ngaa dem ba ci biir mu jàmb la bu demee ba gis keneen ku mel ni yow ci moom wala keneen ku ko gën a bëggati comme yow mën na laa indi yeneen problème ba dégager la ci boppam daadi di kook su boobaa nag nan ngay tourné waatee ci waajur yi aussi mm-hmm. dana ci jara sóoraale bu baax a baax parce que àddina la lu ne ngi ci biir su boobaa nag da ngay am xalaat wëlbatiku say waajur di la ñaan yàlla affaire yooyu wala dégager la ci seen bopp tamit ñu naan euh, topp góor a tax ay waajuram du moyu ko loolu tamit day doon beneen problème ci ci boppam ma di ko xamal ne ko daal man su fekkoon ne bii man la mm-hmm. la ma koy conseiller mooy na wëlbatikuwaat muñ wëlbatikuwaat góorlu bu baax takkaat ndiggam bu baax daal di xamal xale bu góor bi mu bëgganteel na ko yàlla dogal na ni comme que dem nañ ba nga xam ne war nga maa mën a jël war nga maa mën a jël ji man nag man soxna Njawaan ci sama àtte bopp mooy koo bokkal diine rek. Mhm. man koo bokkal diine daal ci laay xool su fekkee ne bii nag yéen bokk benn diine ji ah te mu xam xel ne ni moom war na laa mën a jël te bëgg gi ci yow nekkul ci say waajur jéem a la toog ci say wetu waajur te naxanteeg say waajur. bu leen won ne mere naa leen bu leen won ne gedd naa bu leen won ne damay ñibbili ku góor ki wala damay def neneen ndax carrière yu jigéen yàggul te lu la ci may woy wu ñaaw say doom ëllëg di la ko xoolee dafa yomb léegi nag da ngay jéem a jegewaat say waajur ne leen man maa ngi tuub te jéggalu man uma ku dul yéen comme que uma ku dul yéen nag yéen a ma yor ba ma toll nii pattalu leen ma làggalu leen ma xëy na bëgg moo demee noonu rek ndax gënuma leen a xam kon nag maa ngi toog ci seen wet fu ngeen ma dugal ma dugg fa su ma sañoon de kii ngeen may may duma ci bëgguma ko ndax duma ko mën a sëyal suñ demee na ba xam ne ay waajuram yi kooku lañ bëgg te moom it bëgguloo naqari ay waajuram ah mu jéem ko koo nangu rek su demee te yàlla dogal ne carrément moom xelum jigéen a ne woon ci moom rek xelum génn na ci bëgg ñëw na mu continuer suñ demee nag tey ji ba yàlla dogal ne kii kat luñ ko mën a defee li bëgg du bañ bañ du bëgg bañ nga ma waxoon ba tey moo ne ci moom ah ku góor ki su ko mënee muñ alhamdulilah ku góor ki su ko mënta muñ tamit dem ba ca waajur yi ne leen def ngeen li leen li leen war kat waaye kii ngeen ma bëgg a may di sama doomi bàjjen moom wala sama doomi nijaay wax dëgg yàlla bëgguma kon nag nañ ko daal di yemale fii ma defe ne ku góor ki tamit bu dee nit la te am expérience tuuti wolof njaay dana ku lamba yaa tey daagu faj la nobee nit ki fu ñu la bëggee bëggantee fa mais fu ñu la bañee bu ne bul day jigéen ak day gone daal di profité def fa sa alal pour jënd ko déedéet ndax xol moom du kaw su kon yow yaa war a njëkk a bañ doon yumpaañ wala bàjjen wala yaay yéen kër yéen a ngeen ma waaye bàyyi rek ma seeti leneen wala ma seet rakk ji wala ma seet mag ji xëy na foofa mën na fàtte waaye comme yéen def ngeen moyen bu ne pour bëgg ma te moom daal bëggut bu yàq ci famille bi dara na seet ki mu bëgg rek ma ki ma bëgg loolu du dara. Mhm. Euh, noonu la euh, kon na kenn ku nekk seet euh, ki nga bëgg bu ko defee rek dana yombal mbir mi waaye itam xale bi comme ni ko soxna Ndiawane waxee xale bi tamit na jéem a xoolaat. la ca ginnaawam ndax moom li mu ñàkk moo mhm. li li muy ñàkk mhm. euh, mooy moo gën euh, di ñàkki waajuram parce mhm. que góor ñi des fois dafa am ñoo xamante ni jaruñu fippu ndax mën nga fipp mujjee des te sax nag ñoom ñu daal di dem toog seeni waajur yow finalement nga ñàkk say waajur te loolu euh, dara jaru ko te góor yi léegi daanaka jaruñu ngay fippu lenn li bu ko defee kon li ëpp solo mooy dégg sa donte ni ndax damay faral di wax na te soxna Ndiawane wax na ko léegi nii Euh, waajur du jël mukk euh, sawara di ko dugal ci ñu doomam mm-hmm. lépp lu mu ko digal rek day jàpp ne mooy njëriñ li nga xamante ni moo gën ci moom xale yi tamit il faut que ñuy dégg lool di xam ne euh, seeni waajur ñu leen kenn du jur doom di ko bañ amul fenn léegi nag boo jàppee ne sa sa say waajur dañ la iñaane parce que des fois di nga dégg sa ab xale naan kii daf maa iñaane ak daf maa mm-hmm. kii ak lii te fekk demewul noonu day fekk ne moom day gis loo gisul ndax damay dégg ñu ne mag xale na nekk ca kaw mag nekk ci suuf di gis loo xamante ni xale ba gisu ko ca kaw mhm. te loolu day daal di comme que loolu nag day am yow xale bi nga xamante ni yàggoo ci jamono te lu bëree bëri bëri xamagoo ko ci jamono wala lu bari raw na la nga war koo xam pour nga xam ko il faut que nga nangu euh, déggal say waajur te déggal say waajur mu ëpp ñaan fuuf ngay fippu ne nii ko bëggee nii laa ko bëggee te say waajur fekk si la ci mbir nga fekk si nga fekk leen ci mbir moo ko gën mhm. te loolu daa mat a bàyyi xel say waajur di la di wàcc di la fekk si ci mbir yow nga wàcc fekk leen ci mbir ma moo gën te mooy ëpp fuuf tawfiit ci yow mi nga xamante ni yaa yaa yaa soxla ngay xale bi nga xamante ni yaa nekk ci buntu àdduna mm-hmm. commencé cee dugg commencé soobu beneen bi tamit mooy euh, xale yi balay lii di am day dee leen fexe di concerté wu di waxtaan ak seen ay waajur mm-hmm. ci lépp loo xamante ni euh, da ngeen ciy bëgg di dugg des fois ndax mbir boo ci duggee euh, ba xas soobu ca rek pour nga génnaat ca day jafe ndax lii teel cee so teel cee soobu te ñàkk koo xam moo waral lii am waaye bu fekkoon ni moom ba mu cay sóobu waxtaan na ci ak li nga xamante ni moo di ay waajuram peut-être mën na bañ a mën na bañ a agsi fii bu boobaa ba muy jàpp rek la ko waajuri naan bàyyil waaye comme que dugg na ci te ay waajuram euh, peut-être yéex nañ ko wax wala ay waajuram tamit gis nañu rek toog ndax am na ci waajur yoo xamante ni tey li ñu gëm mooy seen doom lu man di nekk te expliqué lu leen rek ñoom dañ cee daal di maandu dafa am bu leen seen doom dañ romb gauche droite di liggéey lijjanti am mais tant que leeralu leen mbir mi rek ñoom dañ ciy daal di maandu waajur nag warta doxee noonu dafay am fooy toll bul maandu ci sa doom ci ci lu mu la expliqué mais lu mu la xamal ak la mu la xamul lépp te loo ci njort rek danga ko war a waxtaane ak moom partagé ko ak moom ngir nga jariñ ko parce que xale mooy xamul dara te yow mi waajur bi euh, yaa xam mm, te sàmm nga aussi ci sa doom nit nag boo nekkee sàmm ci moom waroo di xaar moom mu tourné ñëw di la expliqué waaye yow da ngaa war di dem di xami lan moo xew ak nan lay doxeek lan moo kii bu ko defee dana dana dana dana moytu wala muy euh, moytoo dugg ci yenn jafe-jafe yoo xamante ni ëllëg daf koy réccu ndax xale bi bu démb doon tey jàpp naa ne du bëgg dana toog xaar ay waajuram ba ñëw waaye jafe-jafe bi mooy bëgg na ma pare te xool tamit comme ni ko xale yi di waxee du góom bañ koy bañ koy bañ koy bës euh, des fois day nekk loo xamante ni boo xasee bëgg yow da nga jàpp ne bëgg nga rek euh, lay lay sabab ga mooy faw li ma bëgg ma atteindre ko te bu boobaa mën na nekk ay loraange yoo xamante ni du baax ci yow kon nañuy xool positif que négatif nañuy xool lan moo war a xew jamono ji waaye après tamit lan lan moom a ci mën a fekk la la ca mën a fekk ndax lu baax la wala deet lana la ca a fekk ndax lu baax la ba boo ca duggee da nga ca mën a génnaat wala déet yooyu yëpp dafa mat di sóoraale ci xale yi oh, xale yi moom euh, soxna Njaawaan dafa mel nii euh, seen liberté gu ëpp gi nga xamante ni am nañ ko euh, day waral ñoom tamit ñuy dugg ci ay mbir yoo xamante ni duñu ko xam te bu ñu leen cee génnee dañuy jàpp ni loola mooy la nga xamante ni moo baax des fois day mel ni day sabab lii waaye itam mm, nan la mën a nangoo parce que loolu tamit bëri na nan la man a nangoo nit bëggu ko ñu ko koy forcer moom mu koy takk ci far force loolu tamit lu ma lu ma lu ma jaaxal la soxna Ndiama. jërëjëf sëñ lu mooy li ma la wax léegi rek ñàkk fayda weesu wut. Mhm. ñu lay may koo bëggut. Mhm. ndax dañ ne ko lamb yaatee daagu fañ la nobe. Mhm. ndax moom ab couple balaa neex dañ naan da waa ji moo ko xool ba bëggal ko boppam dem dox ko ay bokkam may ko ko. wala ñu ne ndaw si moo ko xool ba bëgg ko bi ko waa ji bëgg seen ñu fekk bëggante nañ ñu dogal seen diggante. waaye soo jëlee ko góor ki may ko ku mu bëggut ni mu koy indilee problème ni la demee ci boo jëlee ko jigéen ki tam may ko ku mu bëggut waaye góor gi yor alalam ji liggéey ko ba mat mu téye ko dem di takk jabar mhm. moom bu dee daa gëm waxi waajuram bañ ne ko bul ma takkal ku dul sa doomi bàjjen diw wala sa doomi nijaay diw moom bu fekkee am na yar ak teggin am na ku doon bëgganteel tamit ba ñëwul wax ay waajuram nangam dem dugg ci lu mu xamut moom moom ñàkk na fayda lu la waajur yi yabal yabal yabal yabal xanaa nga dem xale bi nëbb la ak bañam su la xale bi nëbbee ak bañam nag ba nga takk ba indi ba ci biir kër gi ndax topp nga say waxi waajur ba takk kañ la wax ba nga indi ko su ñëwee bu la wanee benn geste boo xamante ne leer na la ni kii bëggul su boobaa sañ ngaa dégagé wu sax waaye comme ci biir ngoro gi la sa dara demagut sa waajur la fa ngir doxal ak mbokk ca fiñ la yabal moom ku jigéen ka bëggeewu la fa kooku moom ñëwaatal ak yar ak teggal nga ne sa yaay ak sa pap fi ngeen ma yebal de dem naa fa mais nee ma gisee ni mu defee relation mag man daal seet naa ko ba xam ne ko bëgg nit du ko doxalee léegi daal yaay làmbal leen ma feneen wala ngeen bàyyi ma ma seet ko ma bëgg loolu daal moom mooy li war a am waaye jàpp tamit sa njaboot di nga dem kër bàyyi diw di nga dem kër baay jën diw te bëggante ga fa war a am amu fa kooku da ngeen di indil xale yi problème indil leen wàññi ay jabar góor a ngi wàññi ay jabar yu bari looloo ko ko yóbbee jigéen a ngi wàññi ay sëy yu bari looloo ko ko yóbbee jigéen a ngi génn dem di ëmbi loolu ko ko yóbbee mais ki bëgg nit ba nga xamante ne bii ni moom yabal nga ko dama takk doomi diw mu dem doomi diw jooju moom yow mi ko yabal dégg na sa wax yaay waajuram te bëgg laa indil kenn koo xam ne sama yaay àndu ci wala mm-hmm. naa dem takki foo xam ne sama yaay bëgg ko woon kon fi ma sama yaay yebal ak sama papa fa laa dem ba nga demee ca ñooñu ñu la tax jóg nag koo ko bëggu la àndal ak sa yar ak sa teggin ndax boo ne salaamaaleykum rek bët bu la bëgg war nga koo xam bët bu la bëggaleel war nga koo xam bët bu la bëggut war nga koo xam mhm. bëgg dafa am nag ak bëggaleel la mhm. nit da lay bëgg ci sa comportement mhm. nit da lay bëgg ci sa abiyewu nit da lay bëgg ci sa financement nit da lay bëgg ci sa présentable bokk te ñi nga xam ne bii da dañuy xam ne kii yor na nga ne siiw capturer ko pour récupérer li nga yor xale jigéen yi dem nañ ba dañuy am ñaari far wala ñett dañuy jël ku yor jël ku yorut ku yor kooku si yàlla dogee ñu bëgg ko ci seen xol dañuy seet beneen sàmm mbéy nga bu ci bokk rek boole ko ci seen biir ku yor te xamul fi muy teg tànkam bu ko defee di récupérer ci kooka di jox ki nga xamante ne bii moo yorut di ànd ak moom toujours bu jot da ngay gis ñu di ko théâtre mais ci biir loolu nag ki yor moom te ñëw di financé te soo ñëwee gis nga fañ lay placer gis nga nañuy wax a yow wax dëgg yàlla war ngaa mën a xippi say bët xool. Mm-hmm. soo nag ne man mii nag kii moom seet ko ba xam ne. bëgguma naa dem làmbi leneen ñëwaat ba ci say waajur na leen nag yéenay samay waajur su ma sañoon fu ngeen ma wax fa laay dem yéen ba ngeen demee wan na leen yar wan leen teggin wan leen bëgg parents yooyu tamit bëgg nañ sëy bi am mais kii waral sëy bi ci boppam moo bëggul sëy bi kon nag man tamit yaay nañ ma seetal leneen moom mu seet leneen mm-hmm. su waajur yi demee nag bëggatal na ci tey nee nga doo jàmb say say waajur yow ku góor gi dem def nga li la war yëpp def say may ak say lépp bañ may la xale bu jigéen bi ñëw sëyat si la premier mois bi wala un mois et bi mu won la ci waaw góor ba nga ne noonu la ma indi jikkoom ndax jikko di gane bañeel gi la lay teel la won mm-hmm. indi ay problème nga daal ne na li ma doon wax a ngi nii ñu naan sëy bi liyee ci dugg liyee ci dugg fekk na la ca woon ca début ba moo ci nekk ba tey mbañeel googu moom ngeen ko forcé moom la indi te fas yéene koo toogee mën a ne nag su may yegg di dëpp mm-hmm. kon yenn problème yu bëri ci waajur yi la man na ni ma gisee man ku yor njaboot gu góor ak njaboot gu jigéen bul wax njabooti kanaara laak nii nii ne déedéet doom bu góor sax bul xaar mu wax ak mu ñàkk laa wax su tollee ci am jabar te waxu la dara ndax day am moment boo xam ne day rus ci kaw ni ngeen comporté mais man bu fekkee comme man ni ma taxee ak sama njaboot muy bu góor ba muy bu jigéen ba ki ci toll ci am jabar ñaari da ngay ñëw toog waxtaana man ma maana mën naa la wax lii wax laa ma ne waa yow sax ci loo ne koy bëgganteel ah gis naa gone góor yi bëggante te xam naa yow mii ñàkkul ku lay bëgg mbaa koy bëgg mm-hmm. man maag samay doom amuñu boobu kii boo xam ne duñ ma ñemee wax wala duma leen ñemee laaj su ko defee nga reene teel sama yaay mii daan nangam soo demee ma am ñaari fan ñett dina comme ubbil nga ko bunt mhm. wax la moom ci lii laa nekkoon wala man kay ci lu ngeen ma dugal nga xam man ni ma leen ubbilee sama bunt mooy ku góor ki mhm. koo xool ba xam ne bëgg nga ko te ngeen bokku diine ku góor bëgg na la ko jigéen bëgg na la koo takk indi dinaa la yoral mhm. maa dugal fenn sama doom foo xam ne danaan lii sama yaay ma ko yóbbee waaye naru ma ko woon muy àq doom ji jigéen ji tamit yar naa ko fi ma ko war a yaree téye naa ko fi ma ko war su mbokk ñee bëgg ko mu bëgg mbokk ma ñu mën a bàyyi loo ci xam. Mhm. waxtaane la na moom kat bàyyi yor doomam moo ma yilif yilif doomam bàyyi ba oo yow bëgg nga diwa mu ne waaw diwum yow mi bëgg si mu ne man kay moo ma tax a jóg ñu dox loolu muy sëy muy jàmbur ba muy mbokk ma. Mhm. man ci noonu laa doxee man. yërëmal ma rek te yoral ma te yiiral ma sa sew moom xaalis bi ñuy coow. encaissé ma la ñuy joow ndax yor bu baax a gën alal mm-hmm, mm-hmm. waaye soo jëlee sa doom tey maye ko laaj ci loo xamante ne bii soxol sedd na ci kuy mu dem yor ba doy waar lam ko waroon a yore yëpp yaa ko mm-hmm. kon nan la fay demee kon waajur yi ñun nañ seetaat ni ñuy téye suñuy xale nga te xale bu jigéen ay 18 ans 17 ans su jógee dem ay 18 heures ci ngoon mu solo ba jekk lon ko saagam ne la ma dem te ñëw amul foo jëm amul looy doxee amul kër goo jëm. Mm. su ñëwee nuyu na papaam dugg ci biir bu baay bi ne yaay ji ana diw nga ne ko léegi la fi génnee soriwut. Mm-hmm. doo ko mës sa waxal fi mu jëm. Eh. te doom ji jigéen ak ndeyam umpante wuñ. Mm-hmm. su ñëwee daal di yëkkati mille francs wala mille francs yoo xam ne mat na natt 2 jours wala mat na ndawtal rek yow doo wax dara. su ko defee sa paa bi waroon na kaas nga ne ko moom ma yónnee woon ko kër yaayam diw wala kër baajenam diw. ba mu indi la loo xamut. Mhm. su fekkee paa bi tamit doon na koo xamante ne bi kilifte mam des na bu ndaw si dikkee indil ko ay fruits wala indil ko ab xaalis moom moomet mu mën a xëy joxe dépense am rek la may koy njëkka a papa ma dem ca noo mën a ko na yàlla neexal saw yoon. Mhm, mhm. te xamoo yow ci li muy dox lan la. su demee nag ba indi noo xamante ne bii nag lii bëggu leen ko woon nga ne bett nga maag yàq nga askan wi yàq nga néeg beeg fi nga dugg ak fi nga génn mu leer na la lam daan doxe di la ko indil te liggéeyu ko war ngaa xam fi ko doon jëlee danga cee tegoon sa tànk kon dama lay wax na la par responsabilité yu bari. mu mhm. ngi ci ñun parent yi nañ jëbbanti ko waat. 88 la 628 19 05 wala 88 628 81 08 kon parent yi nañu gën a taxawaat gën a jaajuwaat ci seen njaboot gi nga xamante ni ñoom ñooy sàmm yi ñoom ñoo mën a tegaat njaboot gi ci yoon ngir euh, xamal leen. Euh, tey waaye itam xamal leen démb waaye itam xamal leen suba ngir ñu mën a xam nan la ñuy doxee ndax dafa bëri ñu mel ni man dañuy tañaxu rek ci mbedd yi xamuñu lu ñu war a doxee seen àdduna te jàpp nañ ne àdduna bi moom ñoom ñoo ko moom ndax day fa euh, xale day am fu muy toll dañ naan bu majeur yi rek day jàpp ne mu asamaan si bu doon wàcc sax mën na koo téye euh, bu dee góor rawatina góor nag moom surtout xale jigéen yi nga xamante ni nag jamono ji moom seen a opportunité dafa bari lool surtout ci ci ci ci côté boobu nga xamante ni maire Ndiawane waxee na fi nga xamante ni parents yi ñoo war a gën a gën a waat waaye itam bàyyi euh, li nga xamante ni moo di mariage forcé parce que mariage forcé des fois sax da nga koy xeex mais parent yi dañ naan man maa euh, jur sama doom mhm. maa ko yar ba mu màgg am sañ-sañu xool ku ma neex may ko ko mu mu dem ba jamono ji sax léegi kenn am kenn amatul fi toog ci koñ ne dañuy xeex mariage forcé ndax boo ko xeexee euh, coow nga cee mujj dégg ak dal kii daa goog ak xale bi daa teel a xeex lii ak ñoom suñu doom te benn affaire la boo xamante ni war naa mën a jóge nag ci jamono ji ñu nekk nii muy jël sa doom ne force kii laa koy may bu fekkoon ni tàmmal nga ko xam nga ki nga tàmmal tàmmal ne ko toujours su ma la yónnee euh, defal directement fu ma la yónnee def directement dëppaat kooku boo ko tàmbalee loolu ak heure boo ko mën di yónni noonu mën leen ko tàmbal loolu lay def mais fekkee xale da ko tàmbal comme ni ko mère Ndiaye waxee da ko tàmbal à chaque fois moom mu ngi génn te expliqué la fa mu jëm fan la moom day dem rek bu ñëwee bu la indilee la nga jël consommé boo lee euh, papa ji mu consommé boo dilee yaay ji mu consommé kooku nag di dem di dem di dem dem ba gis la mu bëggal boppam kooku yow dootoo man tëba tëb ne ko lii laa lay choisir comme force voilà très bien dootu mën a nekk léegi nag bu fekkee da nga bëgg ne day mën a nekk force kon léegi lay am mooy mariage forcé moo fay dikk mooy force ca kee nga jëm te pourtant yow yaa ngi ko doon di ko ëffal di ko bàyyi ci mbedd mi la indil te xamoo fu ci kan la ko doon jëlee le fait que mu koy jëlee ci kooka di indi kooka it ñoom ñaar ñu ngi nekk bëggante benn bés kooka dikkee dama koy takk nga ne ko du ci dal kër laa lay may c'est-à-dire que mariage forcé yi parents yi comme li nga wax parents boo xoolee ñoom ñoo ñoo ñi ko fondé ñoom ñoo toog seetaan seen ay doom bañ dugg ci lu ñu xamul ñu bëgg ne far force na dangeen ciy da ngeen ciy génn mais li ëppoon solo mooy ñu yar leen ci dal toog tee seen tànk yam comme ni ko xale yi di waxee toog sa pooju yaay ba ñu soxla la di ko jël yóbbu loolu nag daa mel ni dafa xaw a ruus léegi xale yi léegi moom ku ci xaw a kii rek génn nga dem ak sa bopp toogatoo fa nga war a toog léegi gars yi dañuy euh, ci ci ci whatsapp bi la ñuy doxaanante ci ci ci ci internet bi. Mm-hmm. ci mbedd yi fu nekk la daje da ngay romb nit mosoo koo gis mosulaa gis nga doxaan ko mu nangu ginnaaw suba nga ne ko dama laa bëgg a takk léegi yooyu moo fi am te loolu nag parents ñooñ ñoo amab seetaan mhm. parce que seetaan mooy ñoo jël seen ay doom teg leen fi ngeen war a teg mais bu fekkoon teg nga leen fi ngeen war a teg ñuy col-col gu baax di sol lu baax ndax xale tamit bu fekkee mu ngi génn toujours te la leer na col gi mu col nii rafetlu woo ko muy génn ak col googu noonu da leer ne am na benn ablaay bu nekk ci mbedd mi di xaar mu génn ba am dajeek moom ba giseek moom ba am fu ñu dem wala ba am lu ñu wax ba am lu ñu tënk ñoom ñu nekkal ci seen bopp léegi nag bu fekkee ne yar nga ko d'abord da nga koy yar ci col gu normal mu koy sol col goo xamante ni bu génnee képp koo ku ko gis ci mbedd da nga koy respecté ndax des fois jigéen dana nekk ci mbedd mi romb xale bu ndaw xale bi di ko piisu parce que la mu sol la moo may opportunité xale bi ba xale bi mën a am assez accès pour dugg ci moom pour mën a wax ak moom léegi bu fekkee waajur bi protéger nga sa doom ci colin protéger nga sa doom ci téye tànkam protéger nga sa doom ci téye làmbañam protéger nga sa doom ci maandu ci doylu yu bare baree baree bare mën na cee mucc parce que xale yu jigéen yu bëree bëri leen di dugal ci mbir mooy ñàkk a doylu li leen ciy dugal mooy seen tànk bu buñ teewul leen ci dugal mooy seen làmbañ buñ teewul ak yeneen ak yeneen ak te xale yi léegi koo ci gis rek li mu bëgg d'abord mooy dana am téléphone bu normal dana am connexion bu normal te yooyu yépp bu fekkoon ne jamono ju njëkk ji la comme ni ko gars yi dañu ni ko ni ñu ko doon faral di waxee bu boobaa xale yi nga xamante ni amuñu benn gis-gis bu dul ni toujours nañ nekk seen bëggi-bëggi waajur ba heure tëdd jot ñu dem tëddi bu fekkee dañuy liggéey dañuy xëy liggéey bu ngoon jotee ñu wàcc dugg seen kër buñ génnaatee suba bu ñuy xëy liggéey la mais xale yi léegi dañuy jàngi di jàdd ci ruq yeeg ci koñ yeeg fu ne seeni seeni parents duñ lijjanti bañ xëyee suba ba ngoon jot lu ñuy def bu njëkk dañ leen daan jàngal togg pour fu ñu dem mën a nekk léegi kenn jàngalul togg sa doom ñu baree bari seen doom buñ jàngee école bu ñu wàccee pare nañ ca buñ génnaa buñ liggéeyaatee dañoo war a xëy jàngi te xamuñu seen emploi du temps ban heure la ñuy wàcc ban heure la ñuy xëy am ñoo xamante seen i doom bu ñu xëyee nii lañ leen di gëj seen doom yi góor lañ leen di gëj gis ba guddi des fois sax ñu fanaan àll bu ñëwee duñu lijjanti fu ñu fanaan c'est-à-dire que ñàkk contrôle googu noonu mooy waral xale yi am liberté nit nag bu amee liberté day jàpp ne lu nekk ci kanamam rek war na caa am accès pour dugg ca loolu mooy waral xale yi di gis di bëgg di xalaat di am beneen réaction ba mën a jëflanteeg seen ay parents naan moom ba muy bëgg kenn bëggalu ko des xale yi dañuy toog naan ñoom moom ba bëgg bëggalu ko moom moo toog ba ci yàgg bëgg nit kam bëgg mu nekk ak moom kon man na ma bàyyi mu bëgg ki may bëgg xale bu dee bam am loolu di ko wax ay waajuram rek mm-hmm. xam nga ne am na foo ko teg am na loo ko def ba mu mën a am accès boobu maanaam seetaan nga ko ca ba nga ko waree yar te yaroo ko bay bayal nga ko Euh, li ñu naan ku yar sam kuy bala moo bala moo mbëgg kenn yow lay njëkk a mbëgg mhm. je pense loolu mooy am des fois ci parents yi waaye euh, soxna Ndiawane balay balay émission bi jeex dañuy dikk ci njeexital gi nga xamante mën na ko am parce que ci sa biir wax maa ngi dégg nga naan mën na sax xale bi sax mën na cee dem jëlee ëmb mhm. parce que ki nga bëgg nga tàggale ko moom mën na nekk sax ci biir néegu sëyam di dem di ko seeti ndax bari na ñoo xamante ni euh, ñu ngi seen biir néegu sëy li ñu naan am jëkkër am far mhm. parce que ka ñu bëggoon may ñu leen ko ñu nekk ku ñu bëggul di génn di euh, fekki ka nga xamante très di taxawaal am ñoo xam dañuy dugg ci sëy bi ndax bëgguñu woon waaye dañ leen koo forcé ñu nangul seeni parent dugg ci am ca ñaari weer ñetti weer génn am liberté nag mën a taxawaalu ci mbedd yi fu leen ne njeexital gi nga xamante ni mën na koo am ci mariage forcé tegal ma kii bi tuuti mhm.

defoon

bay bindal na ma ñetti laaya bay bindal na ma ñetti laaya bay bindal na ma ñetti laaya 88 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 mën ngeen ànd ak ñun seen émission confidence ngir ngeen bën a ànd ak ñun dañu euh, ñu leen di euh, fàttali li nga xamante ni rek moom la ñuy waxtaanee euh, balay waxtu wi di jeex dañ leen daal di dégtalaat élément bi comme ni ngeen koy sàkkoo saa su nekk rek daal di dellusiwaat. lan mooy dama bëgganteel léegi ki nga xam ne moom laay bëgganteel sama ñaari waajur d'accord te man ak waa ji yàgg nañ yàgg nañ trop ñu dund mu bëgg mu bëgg ko mais man ak waa ji nag bokkuñu dara mais bi ñu ba si biir ba waa ji ñëw bëgg a ñaan si pour ñu may ma ko samay parents bañ léegi am keneen ko xamante ni sama mbokk la moom sama yaay ay mbokk lañ léegi kooku tamit ñëw ñu ne ma duñ la may ki nga xam ne bokkuñu dara duñ la ko may ndax kooku bokkuñu dara xamuñu ko duñ la ko may duñ la may ab jàmbur daal maanaam. man ko yéen lan moo tax nangu leen maa may ki ma bëgg ñu ne ma duñ la ko may ndax du sa mbokk kii fi ñëw nga xam ne mooy sa mbokk moom lañ lay may. léegi bu ñu nee bi si biir man leen man bëgguma ki nga ki nga xam mooy sama mbokk bañu ma ko te su ma ko bañee bañ sama mbokk waaye yaa dafa dafa ki nga xam ne moom laa bëgg mu bëgg ma su ma suñoon ngeen may ma ko affaire de mbokk ak yi du dara ku nekk ak ki la yàlla seen borom booleel rek ñu bañ nag ñu ma la ko may. léegi ñu dem ba si biir waa ji suñ mbokk mi moom moom macha allah yàlla suñ borom wërsëgal la nag mu am alal lool léegi xam naa tamit samay parents alal ji lañ gis ni ma duñ la ko may ndax ki nga xam ne bokkuñ daal yorul dara maanaam di ko xeeb ak yooyu daal maanaam ki nga xam ne mooy suñ mbokk daal am na alal te man gëm naa ni man alal ji lañ gis moo tax ñu bëgg ma cee forcé te man mi aji dem ji gisuma alal ji kii nga xam ne bokkuñ dara yàlla dogal na. man manam soriwut man bëgg naa ko mu bëgg ma léegi ñu du la ko may ndax kee yorut maanaam daal si gàttal ki am daal moom lañ la bëgg may mu doon affaire bu ma met torop ndax bu ma ci forcé ba ma dugg ci xale bu góor bi dina xam ne man samay parents alal moo tax ñu forcé ma ci te man mii aji xam naa man sama bëgg-bëgg alal dugalu ci waa ji moo ci duggee tamit alal dugalu ma ci waa waaye man tamit fekk siwu ma leen si leen wax benn yoon si laa demee sama benn ndijaay ku bokk sama yaay ndaya baay expliqué bi ko lépp nu mu demee mu ne ma wax nga ma de waaye dinaa jàpp sab loxo parce que say ñaari waajur ma toog ñu toog ñu waxtaan wax ma affaire bi demee ma ne ko waa baax na ma ànd ak sama ndijaay bokk sama yaay ndaya baay daal di dem dinañ waxtaan ak ñoom ba pare ñu ne ko ki ñu bëgganteel xamuñu ko xamuñu ko ab jàmbur la te mbokkam yi nii di ko bëgg si yow la moo du sa ak moom di sëy ak kenn xam ne amul léegi sama nijaay bi nag daal ne ko kon ngeen bëgg a sukkandiku ba may may maye ko moom xoolu leen ci dara lu dul alal xoolu ci mbëggeel xoolu leen ci yéen ñaar fu ñu ñoom ñaar fu ñu toll lu dul alal ji ko ki nga xam ne mooy mbokkam ñu ko ko may ki xam ne bokkuñu dara bëgg na ko mu ko moom lañ koy may sooba yàlla bi si yàlla àndee moom lañ koy may sama papa sama yaay rek ne ma buñ la ko mayee boo fa sëyee boo fa doon dee tamit duñ duñ la fa fekk fa fekk te bis bu sëyi kër gi bu sëyi kër gi bis boobu noonu ngay génn bu mu fi te xam nga waajur dafa foo si xamu ne jigéen bu nekk buy sëy sañ na bu toogee gis yaayam gis papaam mais neexut ngay dem sëy gisoo sa yaay gisoo sa papa dafa metti métti na torop maa bëgg nag waajur yi ñu am dama bëgg waajur yi képp ku am xalaat wala looy xelal borom jafe-jafe yi ñuy teg ci temu tey bi mën ngaa woote ci 88 628 19 05 88 628 19 05 seen émission confidence te émission bi génnee njàqare yi ak jafe-jafe yi nit kiy dund Euh, voilà seen mission confidence moo nekk noonu nee naa leen saa su nekk rek dana may ay yoo xamante ni moom la ñu leen tey dëgtal tey boobu élément la ñu fas yéene ànd ak yéen euh, bu ko defee rek comme ni ma ko waxee woon léegi rek euh, li ci daal di des ci waxtu wi sax bariwul waaye dinañ ci yaatal ci njeexital bi nga xamante ni mariage forcé daf koy faral di am ci xale yi waaye itam ci parent yi bu ko defee soxna Ndiawane dikk ci gën cee yaatal ak auditeur Baol Média FM. Euh, comme ni ma ko waxee woon soxna Ndiawane boo xoolee euh, yaa ngi ko doon wax ci sa njeexi ci sa euh, débuté ak émission ci njeexital gi nga xamante ni mën na koo jur ndax des fois xale yi dañuy am jëkkër am far te lépp li koy waral mooy mariage force bi des fois sax dinañ am jëkkër ba pare génn keneen ëmbal leen mu nekkaay ay affaire yoo xamante ni dañ koy faral di gis ci réew mi ndax njeexital géew gu noonu dina nekk njeexital goo xamante ni dina baax. déedéet sëñ Fallou. Mhm. dama ne li ci li ci dëkk bi moom ku ko bëgg a waxtaanee lépp sax mooy loolu. Mhm. dañ ci ñaan yàlla rek yàlla wëccee ñu sunum xel. ñu di ko rafetlu toujours bu jot di ñaan tamit ñiy dégg di def dégg ak topp. Mhm. parce que xol moom boo xasee gëlëm gëlëm na waaye suñu borom mooy gindi yàlla na ci def ak gindi ba ku réeroon mën cee gindi ko. yaa ngi gis yenn problème yu bari ci néegu sëy comme saa noonu dong lay demee. Mm-hmm. ndax bu fekkee ne bi ñaar yi nga xam ne mooy taxawal dem ci néegu sëy di am jëkkër am far niñ koy waxee mi ngi taxawee ci ñu mayeen lu ko bëggut suñ la mayee koo bëggul li ci njëkk dinga dem am nekk ci sa néegu sëy di ko di ko mbubu mm-hmm. bisimilah. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñuy ziar bu baax. ñuy delloo ziar. waaw bisimilah. tur bi. waaw Mbène Ndiaye. waaw kooku. ah hmm. ngi teewlu émission bi de na <laughs> ah, yaa ngi koy teewlu bu baax. waaw maa mbaa liñ ciy waxtaanee am na solo rek. am na solo bu baax a moom moo xew ci jamono bi xeebaate bi. moom xew na ci jamono. moom kenn amut. Ah, waaw waaw ki naw ba di ba ki nga yaakaar am yaakaar ba di ko may sa bopp ndax. Mhm. Mhm. moom moo rëcc na. Ah, jërëjëf Sidi Diop. Mhm. ñoo ngi lay ziar bu baax di la ñaanal fanu gudd waa ànd ak wér. te xam ne booy dellusiwaa noonu ni dana gën a neex lool ndax dañuy yaatal rek di ci joxante xel ak xalaat. ndax kenn amut yàlla rek mooy ki am. ki am mooy sunu borom bi nga xam ne ku am moo la jox ku ko neexee nangu jox keneen moom mayewut day fay able. kon bu leen di xool ci am koom-koom bi day leen xool ci diine ji ak yërmande ji parce que nit dina la ëpp alal te xolam baaxut. Mhm. te alalam jooju su la waxee nam ko amee yow dootoo ko ci ñee dara. dina la ëpp alal te du jëriñoo alalam alalal ji alam ji moo koy moom alalam moo koy moom gis ko amul dara sunu borom may ko diine. Mhm. may ko ngor may ko muñ te loolu mooy li njëkk. Mhm. te mooy liy mujj kon da gis fi comme fi ma daanalee woon rek di ci ziar ñoom sëñ Modou Dieng délégué quartier démbaloo ak maam Thierno ñoom ñëpp rek ñoom Fane Mendir wax dëgg yàlla ñoom laa yendandool démb te dara ñaawut. Mhm. di ko may eh, sama soppe boobu tamit di taalibi sëñ Daaro Assane Ndiaye joxoon na ma sëñ ma Mbaye Maam Mbaye mu sëñ Daaro Assane Ndiaye maa ngi koy ziar bu baax moom tamit di ko ñaanal fan nu gudd ànd ak wér. moo ki taalibeem yëpp. Mhm. sañ Fallou. Mhm. maanaam ci li ma taxawoon ci laay ñëwaat. Mhm. dafa am jigéen ñoo xam ne ñu ngi am jëkkër di am far. am jëkkër bi am far mu ngi commencé ci benn euh, xalaat bu ma ci jàpp. moo xamante ne nga may ko koo xam ne bëgg ko. soo ko mayee koo xam ne bëgg ko. du amal borom këram njëriñ ma ngi koy utee ji ci àll ba ci kaw loolu ragal na ay parents ba mënta tas day mbubboo sëy bi bari na ci kër yu bari yooyu dugg yoo xamante ne bii bàyyi ngi ngénte ay doom yoo xam ne bu ko boo xamoon fa mu jóge walla du ci def alalam mm-hmm. ñii dinañ ko xam teg ci seen tànk ñii nga xam ko ñu ŋaaw leen ba duñ mën a wax walla nga ne fa ma gis jabari diw ji mënuma koo wax ndax day am yenn wax yoo xam ne nañ naan woy wuy këpp gaal kenn du ko woy ci géej léegi nag loolu la koy indi lu bari mooy ñu may la koo bëggul te bëggoo jàmb say waajur mhm. nga ne naa dem ci néegu sëy ba toog fa te continuer sama maa tey ba xam luñ ci man su yàggee ki ma yor bu sonnee dina ma libéré ma mën a dem suñu kër waaye su ma jékki-jékkee dégager sama sëy rek samay waajur dinañ ma génne te foo taxawaalu dañ naan daa nar bon mhm. mi ngi am ci loola beneen bi nga xamante ne am jëkkër am far bi aussi mi ngi am ci ñàkk a doylu dinañ la may koo bëgg mhm. nga sëyali koo bëgg mu bëgg la tey jii li nga xamante ne bii moom bëgg nga ko ci moom lépp suñ borom dogalewu fa googu am-am lim lay defal nga xeeb ko bay dem di jéggi waane mm-hmm. mu doona lu am jëkkër amu far muy ñàkk a doylu mi ngi am encore ci yare la noo xam ne da ngaa liibaroon ci sa bopp moomoo sa bopp am nga ay tolof tolof ay yoon doog a sëy mm-hmm. soo ko amagul leer na ne yow avant ngay dugg ci néegu sëy téye woo woon sëb sër suñ la ci mayee rek tànk du tàmm gudd gàtt il faut rek ci noonu rek ngay daal di continuer yow yaay sa jëkkëree dem ba ci biir rek na lii su ma ko xamoon du ci dugg waaye nag su ma xalaatee ni ma ko amee waruma mën a bett mm-hmm. yooyu yëpp mu ngi mi ngi waral ci am jëkkër amu far loolu lépp nag mi ngi déparé ci reen bi nga xamante ne bii da ngay jur sa doom rek boyangal ko li ma gën a métti nag mooy jur sa doom te ragal ko dafa mm-hmm. am ci ñun waajur yi mm-hmm. ndax da nga naan dafa ñàkk kersa su ma ko woon di koy yedd àddina wër mi lii muy def maa gën a xam ne tegu ko ci yoon waaye su ma ko ne woon sa bët bi ndox a ngi ci ay taantaam dinañ ci jot wala ay sama sama ay doomi baayam jot ci wala ay papaam di ma coow. Mm-hmm. nit bu la mënta suturaal bu ko suturaal. doom bu fekkee dafa taxaw ci lu bon da nga koy jàmb ba ñi nga nekk ñëpp xam ne jàmm nga ko ñu naa ah, ay la yéwén ndayam faru ko de. Mm-hmm. ndax nag xanaa yàlla dogalee nii rek nag waaye yaayam faru ko. bu defee lu bon ak bu ko bëgg a wax ak heure bi muy dem ak heure bi muy ñëw da kaas ku ne di ko dégg waaye dangay am na yow sa saabu boo xam ne ci ngay fóotal sa doom dégaa bu mën a def rek ci nga koy fóot da nga koy nëpp nëppan su ñëwoon ne la sa doom ji heure bi ma ko gis wala fa ma ko romb kenn xalaatatu ko léegi bu njëkk ba da ngay gis sama doom mu nekk ci benn koñ boo xam ne wala ànd ak ñoo xamante ne amuñu kilifa nga dikk na ma ah, soxna Njawaan yow kon ñoo bokk lépp dama gis ni ngay doxalee waaye sa doom jii da bàyyi ko xel ni ma ko gis muy àndal de doyu ma mhm. oo ko yeddu ko waxtaan ak moom te nga jéggal ma nag ndax di doom yëpp ak sama doom a su ko defee sa xol day sedd da koy gën a jàpp doo ko ci mere wu accueillir ko dalal ko pour ëllëg bu ko gisaatee sa doom bu ñëwee di nga ko yedd te doo ko ne sax yaay diwoo fi ñëwoon danga naan ko carrément man ko topp ma la ba ngay dem waaye nag ci mbedd nga nekkoon gis diw gis nañ la ba ñëw indil ma la fii loolu ba mu amati ndax fa ma tàggoog fañ la gis du doon benn. Mhm. moom bu ci bañut a coow bu ci bañ dara. Mhm. léegi na loolu amatut. léegi da ngay wala yow nga romb doomi jàmbur oo ko ba mu ñëw yedd ko loolu amut sa parce que oo woon doomi jàmbur tey di ko yedd bëggal ko lu baax lam lay njëkk a wax say doom mm-hmm. am nga loo wax lijjanti say doom nga dem ca yaayam oo ndànk ci njëkk ak teraanga di ko ko wax mu ne la xanaa sama doom nga mën a yàq mm-hmm. sama doom mooy sa doom mbaa sa doom gën ko yées même bu fekkoon sa doom doon ko jub sax moom dana ut ay baadim ko gàkkal ba doo amati loo wax kon sama yoon nekku ci ji ak parent yi nga xamante ne bii dañoo seetaan seeni doom lu lëj rek looloo ko lëjal mm-hmm. doom bu góor jubbantil doom bu jigéen jubbantil parce que sàmm la bu ñu lay laaj fii laaj la ko ëllëg comme nag sàmm la nag ci sunu biir même boo ma mënoon a yëkkati di dóor di teg ci suuf it man sama devoir dinaa ko def ak yow mm-hmm. li tax mu dóor yaay ja mën a daa def lu dul yoon mu wax ko ko li tax mu dépassé ko ñu ne daa def lu dul yoon mu mu def mu wax ko ko yaay ji def na devoiram mais doom ji deful devoiram waaye comme yow da ngaa war a sàmm fii ba ëllëg ba ñuy dem ci kanamu sunu borom sàmmal rek. Mhm. waaw ni waajur wi demee ba nga xamante ne bii nekk na ci problème yoo xam ne lii neexut ay doomam bëggut benn waajur sa doom ba bëggu yenn doom yi bëgguñ yenn waajur yi ndax seen comportement tamit yow miy doom su la yaay ji doon rayit toogal ak moom ndànk ne ko ah yaa béykat nangam nangam soo ko mënta wax seetal ay moromam wala ñu ko fore comme waajur nga dem na leen sama yaay sama sañoon mu jubbanti toogaayam ndax nangam nangam. Mhm. parce que boo ci gonee woo ba joboot ci ci moom sa bopp kero ba nga jobootee kero nga gën a mën a bon li nga dégg ñu naan ah mag mu jëm mu toll nii am yi njoboot ak fi ñu koy gis ak li muy def ak fi ko fekk ak lañ ko bett doonut daa doon magum jëm mu doog koo def mm-hmm. fa saxayaay ci yaramam mu doon ab sidd ci yaramam su jegee rek foog mu def ko kon yar xale yi ci bi ñuy gone moo gën ndax jubbanti ci bi muy tooy waaye su woowee nga bëgg a jubbanti day damm rek waaye doo am ker Mm-hmm. kon nañuy góorgóorlu ci éduquer xale yi te xam ne gone yi ñooy mujj doon mag ñooy mujj yor réew mi ndax carrière yu jigéen dafay yàggut soo xoolee léegi nag teel a may teel a may sëy yi ñuy wax am na fu mu baax man lan laa dàq man sëñ Fall. Mm-hmm. mooy mariage forcé yi mariage forcé daal man soxna Ndiawaan Diagne ànduma ci waaye teel a maye moom ñu def seen mariage man ànd naa ci mat naa sëy matuta sëy yooyu man ànd naa ci parce que xale boo ci yërëm ba ne mat naa teel teel ngeen koo maye ay eh, asa ma tollagut foofu doo ci toogaat deux mois mu ko te ñu la xale ba ëmb na mhm, mhm. kon teelan koo maye mu am ko ci buum gu gu gu neex yàlla moo gën comme teel a maye day am waaye teel a ëmb moom du am teel a la maye. waaw waaw surtout loolu waaw loolu de am na solo. dañuy bañ teel a maye. Mhm. te duñ bañ teel a ëmb. parce que xale yi léegi pour noo yee leen di ëmbal. xale yi léegi portable yee leen di ëmbal. ah xale yi léegi dugg ci net bi moo leen di ëmbal xale bu jigéen boo ci xool te ñemee jël portable am tey ji boo ko vérifié di nga ne lii man mii ndeyam xalaatuma ko muy dund ci loolu su yàggee dina génn dem wari ko xale yi jigéen ñi léegi comme li nga wax léegi rek élève boo ci gis ñaari ñi ciy mën togg bariwut góor gu leen gis ba bëgg leen ba def ci ñoom ay alal tam seen comportement seen abus ba ba ba jaral la lu ne su ñëwee ba toggal la ab laax bi gën a tuuti nga ne ko demal fanaane seen kër parce que yow kay beeg biig bi nga ko may suñ ne la bés bu mu jàngewul na dem ca waañu mu ne la déedéet xalaatuma lool sama leçon yi laa kii su ma demee suñ ma ci fii nii def ne nday ja aj la ca kaw seet ko école def ko mbaamu kër gi kay ba mooy doon chef ba fan la tege balaa yàgg tuuti mu arrêté njàng mi ne jàng ba sonn gisuma ci sama bopp boobu problème far yi dugg na ci bopp benn bala comme prof ba incarné moom mooy incarné prof ba lan lay incarné prof ba ca la muy sol mooy njëkk ca classe ba mooy mujj ca classe ba te góor-góor rek la mën a doon. Mm-hmm. léegi defuñ ci seen xel mi mën a togg waaye def nañ ci seen xel mi ni ñuy utee ay far. def nañ ci seen xel mi ni ñuy libéré ji loolu lépp nag waajur yi moo doonoon mal éducation gone danga koy sàmm tey la la jubbanti bala laa wëlbatiku di la jubbanti. Mm-hmm. Euh, am na solo euh, gone teelal la jubbanti bala mu lay jubbanti mu nekk lu am solo soxna Njawaan moom la ñu àndaloon xam naa waxtu yi moo jeex te DJ Kamori moo war a daal di ñëw euh, jël nañ ci waxtoom sax lu toll ci juróomi minute waaye sama waay la bu ñëwee dina ko dina ko nangu. kon bu ko defee rek soxna Ndiawane xam naa dañuy daal di jéem a tàggatoo rek wala ñëw Kamori di fekk ci biir studio bi. Kamori <laughs> Kamori moo war a ñëw 11h30 2h30 la war a ñëw. Mhm. bu ko defee moom mooy doxal ba une waaw. ah man de tey moom da ngeen maa dugal ci loo xamante ne luñ naan lu la bett man la. Ah, yow kay kon xam nga buñ la bett noonu fu xam nga ne toog a ba yàgg rek ñu oole na la tey moom noo mën a def yaay defi émission confidence. waaw mu doon loo xamante ne bi mbetteel la waaye nag lu ci jub ñu ngi koy gërëmee sunu borom. Mm-hmm. lu ci dëng ñu ngi koy tuub te jéggulu te xam ne rafetal rek moo ñu taxoon a jóg ak yéene. ndax ki lay yéene ba leen nangam yaa ma ci doy. moom dañ mënatuñ koo fay dañ ciy ñaan rek ndimbalal suñu boroom fu ñu toll. te bañ ciy gis suñu bopp li ma lay wax toujours bu jot. kon émission bi daa doon euh, émission confidence. Mm-hmm. soxna Ndiawane Diagne sopp sëñ naar jenn euh, di ko def dimanche bu jot ci 10h 9 h ba. 11 ba 11h. Mhm. di ko ànd ak sama doom sëñ Fallou Fall mais nag léegi sëñ Fallou jaañ la. Mhm. muy nit ak bàjjenam wax dëgg yàlla kon ñoo ngi koy ñaanal fanu gudd wa ànd ak euh, wér ak wér la. xam naa beneen yoon lay dàq. bu ñu ci yàlla yóbboo. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ñaax xale yu jigéen yi mhm. di leen wax nañu muñ tey góor góorgóorlu te xam ne carrière yu jigéen yàggul. Mhm. parce que boo toppee sa nab su am fi ñaari doom yi bokkul baay mbaa ñetti doom yi bokkul baay nga wëlbati ko am borom kër ëllëg ak si biir ñu naan la doom ji kuy papaam. kii ku ko jur nangam ni nga koy expliquer say doom sax day lay def kersa te boobu da ngaa toppoon sab nastu yàlla bu la ci say waajur may doole nag mu gën a bonati. benn xale nga mën a topp foo toll boo ëmbee ba feral waajur yi am ci lu leen naqari nga dolli ker sa magatu ko kon nag nañuy jubbanti xale yi mm-hmm. di leen ñaax bu baax a baax di leen ñaanal uh, fan wu gudd wa ànd wér ak wérle di ziar sama wujj wi nga xam ne damaa ragal indil na ma ndékki li moom jaman Cissé ñoo ngi koy ñaanal fanu gudd wa ànd wér te yàlla lafal ko catukum ndog bettee ko boroom kër bu ko bëgg mu bëgg ko te attan ko te am ci njaboot ko barke kon sëñ Fallou daal mhm. ah kon kontaan na daal moom daal bu dee juum naa ci rek maa ngi jéggalu Fall <laughs> eh, jërëjëf jërëjëf Fall euh, noonu la amoon nañu mbégte bu baax doon ànd ak soxna Ndiawane Diagne macha allah euh, comme ni ma ko doore wan di wax rek euh, borom xam-xam la taarkan la firnde na ko ci ñi nga xamante ñun ñu bàyyi xel di topp émission bi xam nañ ne ki doon wax euh, li mu wax li muy wax da koo xam te loolu rek moo ci am solo nit di wax di wax lu mu xam loo xamante ni mën na ci joxe xam-xam bu bare bare taarkaal la te loolu rek moo tax a jóg bi la émission te noonu la ñu ko daal di bëggee woon njort naa ne borom élément bi moom bu dégloo émission bi dana delluwaat ginnaaw bu baax a baax te xam ne euh, jox nañ ko ay xalaat yu mucc ayib kon noonu la amoon nañu mbégte doon ànd ak soxna Naar Diagne waaye itam di jaajëfal mbooleem auditeur ak auditrice ñi nga xamante ni jot nañu dugg ak ñi bëggoon dugg ñëpp rek te àdduwul des fois réseau bi mooy euh, demee noonu bu ko defee rek incha allah di wax ne noonu la euh, dimanche dinañ fi ñëwaat bu 9 h jotee dinañ ànd yéen ba 11h ci kàttanu yàlla baax ak borom fa déggutoon daal ñoo xam na léegi soxna njawaan ëttub jigéen ñi ba tey mi ngi def ëttub jigéen ñi ajuma mm. buñ jullee tisbaar ba pare ba ay cinq heures et demi yooyu waaye tamit bu ñëwaatee ci dimanche bi am na ko 9 heures demi mm-hmm. jàpp 11 heures ku ci ajuma ji raw it mën nga maa topp ci euh, dimanche bi mm-hmm. ma ci ànd ak sëñ Fallou Fall daal ñu ciy ñaan wér ak wérle mm-hmm. ak euh, dégg ak topp daal te yàlla doole ñu sunum xel ak sunum xalaat jërë ngeen jëf euh, jërë ngeen jëf kon mu ngi noonu bu ñu yëkkatee di jëkkamoor yi mooy bu di jëkk amoor yi euh, jógee euh, di ngeen fi am seen émission 13h euh, ba 14 di ngeen am commercial bu ñu génnee commercial 14h di ngeen am Sister Omista moom ngeen di àndal ba 16h incha allah moom Sister mista nag bu jógee da ngeen fi am El Hadji Fallou sport ngeen koy am moom tàggat yaram lay daal di àndee ak yéen incha allah kon noonu la man ngeen di woy di suivre suñu programme ci rajo Baol Média FM bu jërë ngeen jëf. Sawaji sa